siyaare kilifa yi nga xam ne Cheikh Mahamadul Muntaqa moo leen fi yabal Serigne Ahmadul Badawi moom Cheikh Mahamadul Fadal di ko ñaanal yàlla sunu borom dolli ko yàggal te ko ba li nga xam ne kilifaam yi ñu ngi koy yaakaar ci moom waxtu wu nekk mu man koo àggale kaddu yi nag day ndigal rek bàyyi ko sëriñ bi bu nu agsee mu joxoon nu ndigal ci ñu euh, fàttalante waaye nu dollante ci ab taalibe ndax borom ëtt bi ku ko xamoon xam sëriñ Cheikh mii fi nekk xam ne wenn doxin rek la te moo di ak taalibe te loola defe naa taxoon na ba sëñ Modou Rokhaya mu baax ma njabootu Serigne Touba gi seereel nañ ko ba tàyyi murid sadiq te loola moo nekk ca way juróom sëñ Mouhamadul Mamoun waaye loolu it moo nekk ca seen kilifa bu mag di maam Cheikh Anta mi nga xam ne aw dàkkantalam mooy boroom dërëm ak ngërëm kon liggéey ak taxawaay bu rafet boobu rek moo tax melokaan woowu di wàcc di wàcc ba agsi ci Serigne Cheikh. loolu it mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi sose woon yoon wi te moo di yitte yitte ju rëy jooju nga xam ne moom la sëriñ bi amoon digganteem ak boromam am ko digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te tàggat ci ak njabootam ndax lam jotoon mooy ndigal loolu rabbi asxaabaka bil himma loola nag yitte la waaye loola pas-pas la loola it pësif la loola it ci la taxawaloon yoon wii di yoonu murit mu nekk yoon woo xam ne yoonu liggéey la yoonu jaamu yàlla la di yoon woo xam ne dafa tege ci ay principe yu dëgër cosaan li ko sos muy xam-xam ak liggéey ak jaamu yàlla ak ay teggin loolu mooy li sëriñ bi soso yoon mu tege ci rek imaan islaam ihsaan loolu nag waxtu wu nekk bu jëf amee da ngay gisaat ne lañ sose woon yoon wi tam nekk pas-pas bu dëgër ba jiitu woon waxtu wu nekk loola day gën a dolleeku bu ñu waxee liggéey defe naa ku liggéeyul dana am loo xam ne ngir nga mën koo téye dana jafe waaye jaamu yàlla yit nit ki bu ko deful euh, ëllëgam dana jafe ngir mu jag te borom jaam bi bi ko suñ borom sakkee lim njëkk a sakku ci moom te digal ko ko mooy mu jaamu ko liggéey nag dafa bokk ci li koy dëgëral ndax dana tax nga mën a xam fi ngay jaar xam-xam moo koy gunge mooy wammat loola. waaye ay teggin nag mooy li koy rafetal ay teggin looloo tax Sëriñ Tuubaa ba ñu ko laajee ci lan nga sos yoon wi ci yan principe la tege dafa waxoon ne ussu tariqati al bi tawxid wal islaamu bil fiq wal ixsaanu bi tasawuf te loolu moo di gëm yàlla gu dëgër aqida am pas-pas bu dëgër ci sa diggante sa boroom joxe sa bopp ci lislaam ci diine waaye nangoo jëfe sa diine nag te di ko rafetal kon day mel ni yoon la woo xam ne topp rekk ak jëfe ndigal moo ciy jariñ nit moom mi ko taxawal ba tax tey lépp rogalaat barke barke yi di wàcc ci kaw suuf di tasaaroo ci njaboot gi di tasaaroo ci àdduna bi ña newoon ca keppaaru sëriñ bi la leen taxoon a jóg ñu doon ko sàkku mooy ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla nag li tax mu dàq lépp mooy dadul jeex te du ràpp lu dul ngërëmul yàlla nag ab saay-saay mën na ko am waaye ngërëmul yàlla moom ab saay-saay du ko am mukk saxaaba yi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jaay seeni bakkan jaay seen alal génn seeni kër lañ doon sàkku mooy ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla nag kenn du ko amee ci ab noflaay ndax àjjana sax li muy neex neex jullit bu nekk ñaan yàlla tabbi ca ngërëmul yàlla ko dàq ndax ngërëmul yàlla moo tudd al fawzul azim mooy texe gi gën a màgg te gën a rëy mooy ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla loolu nag la sëñ Tuubaa waxoon ne ab murit muy ki namm yàlla jëm ci moom du am genn bëgg lu dul ngërëmul yàlla isil murid laa yuridu abada xayrul dar rahmani ay su xasada kon fu mu mën a jëm ak lu mën di jëf ngërëmul yàlla rek moo koy tax di jóg ngërëmul yàlla loole nag moo taxoon mag ñi jaayoon seeni juddu jaay seeni alal jaay seeni dëkk bàyyi seenu njaboot topp Serigne Touba kon loola dana la dana la won ne bu fekkoon ne rek bokk gin bokk ak moom lañ doyloo mën nañoo am barkeb maam yaag bàyyi ci alxuraan wala barkeb nit ku baax waaye lii moom nu am nga xam ne lu ca bokk barke boobee li sax ci yow loolu moom mënee su ko amee lu mooy ci jaayante ak Serigne Touba ba noppi ñu ngi ko liggéeyal mënee su ko jëlee fenn ñoo bokk nangam du la ko may jaayante rek koy maye ndax bu fekkoon ne looloo ca tax a jot du ko wax ak njabootam te waxoon na Serigne Fadilou ak Cheikh Mamadou Moustapha al Karim ak Cheikh Massamba Mbacké ak sëñ Mor Rokhaya Bousso ca Thiéyeen wone ne du bàyyi kenn du nijaay yi kenn du mag yi kenn li fi moom day day jaay li koy mayee nag mooy joxe sa bopp jëbbul te nu ngoo topp ndigalul bi nga jaayantee ba noppi nag ndax moom Serigne Touba wootewul dara lu mooy jëmee nit ñi ci yàlla yàllay kese rek la woote yàlla jooju muy woote nag am na ca loo xam ne saa yoo ñëwee ci moom mu sañ caa jël ca ngërëmul yàlla la mu am te du jeex mukk sañ la ca tuufal loo xam ne yow foo jëm ànd ak moom mu nekk barke boo xam ne barakatun laa yansawi lay doon barke bu dul dog mukk lay doon ci waxtu wu nekk jamono bu nekk loolu nag tey jii boo xoolee borom dëkk bii di Daaru Salaam di maam Cheikh Anta Gaawaan nga xam ne doy na ci histoire rek jëkk a jaayanteeg Serigne Touba ciy bokkam bàyyee ko boppam ak léppam lépp luñ ko won mu jënde ko ne fi Serigne Touba di sàkku ngërëmam jaral ko bàyyi léppam mosul am genn bëgg lu may topp sëriñ Touba rek moom maam Cheikh Anta Gaawaan jël alalam jël bakkanam jox ko lépp waxtu wu nekk nga xam ne egg na ci di wax sëriñ bi euh, ñaas ma may sa bambara te gis nga niñ bokkee ci soxna Anta Ndiaye Mbakke waaye niñ bokkee ci euh, Serigne Mor Anta Sëli waaye teewuloon nag. mu mën a jaay loola lépp mën koo muñ ngir bëgg a am ngërëmul Sëriñ Tuubaa loola yi tax na ba dëkk bii nu nekk tey muy Daaru Salaam mooy dëkk bi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa jëkk a sancal boppam moom ko muy Daaru Salaam loolu rek doyoon na sëkk ak jagle yeneen dëkk yi Sëriñ Tuubaa jaar bu dee Mbàkke gi mu feeñee jamono maam maaram la bu dee njax kasaalika bu dee poroxaan bu dee ni mu demee fi mu jaar paataar ba ni mu demee mbakki kajoor ba dellu si waat waaye dëkk bii nag mooy dëkk bi mu dëkk a sancal boppam sëñ Tuubaa ñaari dëkk la ma sa sanc muy Daaru Salaam ak Touba yu mu sanc yeneen dëkk yi day fekk ñu sanc ko mën na ci nekk waaye dëkk bi mu sancal boppam njëkk a sanc mooy Daaru Salaam mu sanc ko ci desës mooy 1304 war a doon 1886 muy dëkk boo xam ne bi mu ko sancee ñu bari ci kàngami yoon wi jaayantee nañ fi li tax dëkk bi nekk dëkkub ngërëm mooy dëkk bii la maam Cheikh Ibrahima jëkk a amee ngërëmul Serigne Touba muy Daaru Salaam fi la ko Serigne Touba jëkk a gërëmee te mooy bis bii Serigne Bassirou Fall alxuraan daan taxawee yàlla yàlla dolli ay leeram mooy bisub ngërëm loolu ko Serigne Touba gërëme woon ci dëkk bii di Daaru Salaam dëkk bii di Daaru Salaam ci la Serigne Touba daan ñaane boromam rabbi biha minal wara maa laa yuad yaa xayra man rabba wa xayra man waat demee ci xasida gu tudd sëñ bi day wax ne daaru salaam ak Touba li tax ñu gënal ma ci dëkk yépp mooy sellug yéene yi li ma ko sànce sàncu ma ko ngir cosaan yu njëkk yi lu mel ni sàmm ak jaay waaye dama ko dama ko sànci nag ngir jaamu yàlla képp waaye am ci ndigalu sama borom nga xam ne boromam moo ko jox ndigalul mu ci dëkk bii di daaru salaam jox ko ndigalul mu sànci Touba. yàggu fi ndax ñaari at rek la fi def de sa sin wa sa sin mu sañ ci Touba waaye li ngay xame ne ngërëmul yàlla du caaxaan mooy dëkk bi bi mu koy rafaatale maam Cheikh Anta Gaawaan booba ñaar fukki at yi matul mu jëkk a seex ci yoonu murit sëñ bi boole ko juróom-ñeent fukki dong ak juróom-ñeent jox ko dëkk bi di Daaru Salaam loolu kon won na la ne maam Cheikh Gaawaan lam doon xañtu di ko wut te di ko wute ci keppaaru Serigne Touba mooy ngërëmam loola it mës a dakk waxtu wu nekk sëriñ bi it mës a dëkk ndax ndax sëñ Touba adduna taxu koo jóg xëccoowut ay dëkk xëccoowul alal léppam du koo jaay jënd ko yonent bi sallallahu alayhi wa moom xolam moom cofeel gi mu am ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mënatut am leneen lu muy bëgg ba di ko dajale nga xam ne far na ci biir xolam bëgg dara amatul lenn lu muy bëgg amatul lenn lu muy jublu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek lay bëgg noonu maam Cheikh Anta defoon nag jaayanteeg Serigne Touba. jox ko léppam sëriñ bi waxoon na ko wax ju yéeme am na bi sëñ Tuubaa teg loxoom ci boppu maam Cheikh Gaawaan na ko Cheikh mu ne ko Mbakke mu ne ko sant leen yàlla ndax doo yàlla jox na ma lépp te doo leen sooy kon li ngeen di wut faw da ngeen ci jot te loolu wane na ko tey jii sëñ Modou Rokhaya surtout maam Cheikh Anta Gaawaan sëñ Cheikh Anta mi surtout maam Cheikh Gaawaan maam Cheikh liggéey ji woon liggéey bi waaye tey barke baa ngi. wala ngaan wet gu ne ndax barkeb Serigne Touba dafa amul fu muy yem barakati waasiatun wa baaqiya baqaa umul ko si si hibati safiya moo tax kii këlkin di këlkin sëñ bi du ko du ko dégg sëñ Touba du ku nuy këlkin du ko nattaka ndax ëpp na xel yow da ngay nit simple sa xel ak sa science mënula may nga peek sëñ bi ndax dala ëpp moo tax ki koy bëgg a teg ci ay mental du dégg sëñ bi mukk ndax nii laa ko gisee la koy waxee nii laa ko jàppe fekk sëñ bi jéggi na lool ndax sëñ Touba waxuma xar baax waaye dafa dafa dafa xotti baax xotti baax waaye pas-pas boobu mag ñi amoon nag lu jamono soppiku soppiku it buñ ca delloo rek li sëñ Touba yoroon du fi jóg barakati waasi'atun wa baaqiya la wax lu yaatu la ba noppi lu fi des la. baqaa umurku di hibati safiya desug nguurug yàlla gi nga xam ne feek nguurug yàlla gaa nga fi di sax sama barke bii man Serigne Touba di sax kon loolu ki koy sakku nag te xam ni mu koy sakkoo waxtu ne mu am rawatina ni ñuy tuddee ndaw ñi ndaw ñi bu ñu dakk dara lu may mag ña ndax mag ñi ñoo wax dëgg ñoom ñoo réussir seen àdduna lañ ca waroon a am lépp te waroon koo jëf am nañ ko te seen ëllëg it am nañ ko nga xam ne am nañ tey am nañ ëllëg defe naa mag ñi kenn ku leen ëppoon barke tey maam Cheikh Anta Gaawaan ku ko bëgg ko ëppoon barke amutoon ci réew mi ñaata nit la daan dimbale ñaata la daan financé ci àdduna te doxuloon digganteem ak wilaayetu gu wér gi nekk ci moom muy cërub yàlla bi mu amoon digganteem ak boromam jubóog yàlla. ba noppi nekkoon borom wërsëg woo xam ne du mu bëggoon a mas jëf daana ko jëf na war a nekk te pas-pas yi bi mu koy am du néeg ba nekk ci benn âge bi waaye mën nga ne ci waxtu rawam la xam li muy jaayanteeg Serigne Touba xamit ni mu koy wuute kon fii àdduna tollu gis ngeen tey ni ndigal di mel ak ni jëf di mel yoonu murit waxtu wu nekk pas-pas rek ak yitte moo koy moo ko yóbbu bi fi sëñ bi noppee nekk ci 27 1927 bu fekkoon ne ñi mu fi bàyyi woon dañoo toog rek kon tey fii yoon wi agsi du fi agsi waaye sëñ Tuubaa moo liggéeyi liggéey bi te moom añub zahir bi man naam fekkewu ko jëriñoowu ko waaye ñim teg ndono loolu ci seen loxo it sàmm nañu ko ba dara yàquwul fi ne mën ngaa xool li gën a jafe la yàlla defal waa kër Serigne Touba mooy li ñuy tuddee isaar isaar mooy yow loo xam ne boo ko defee boo jëriñu sax baax na na keneen jëriñ tey misaal bâtiment bii ñu jàkkaarloo bâtiment sëñ Modou Roqe yàlla ñu wax kër sëñ Modou Roqe gii moo dàq kër sëñ Cheikh loolu loo ciy jàngat. pour boo xamee nu yoon wi ni muy mel sëñ Cheikh këram yëpp boo ko boole woon kër sëñ Modou Rokhaya gi ko dàq nga def ko nag ngir jëmmi yàlla nga xam ne yow lu mën a xew yow defal nga ko sa way jur rek keneen ku fa nekkit moom lay moom ak fi jamono toll contexte bi mu ko defee loolu mat naa xalaat loolu loolu mooy jikko ju rafet mooy xam li nga doon lu mu doon. loolu mooy mooy mooy am personnalité waaye loo yor denc koo tanem bongoos li yor di ko noggatu loolu du yoon loolu du sëñ Tuuba loolu moom bakkan rek la ak bànneex te loolu boo ko defee nit ñi xam ko na cel waaye jii mooy jëf ju leer sama classe gi yëpp bu seen way jur bàyyee kër lu ñu am seen gog bopp lañ koy wuti ngir defar ko waaye duñ xalaat mukk ne nañ defar kër goo xam ne nangam nangam loolu nag loo ciy gis mooy xam sëñ Touba ak doyloo sëriñ Touba ndax sëñ Touba ni mu def boppam sengee ko ci digganteem ak boromam liggéey bi li muy yàgg yàgg li muy metti metti lépp moo ko engagé boppam te bi pay gi ñëwee ñëpp a ko bokk fu ne la ñuy simmi dal fu ne la raam tey jii benn addiye boo ma sa jox sëñ Touba ay nit a ngi jël addiye ju ëpp jooju di ko jox nit ki kon defe naa li ñuy wax taxaw seetlu war na waxtu wu ne ci yoon wi ñu di ko jàngat. loolu tey xoolal jumaay njaareem 1918 la ko sëñ Tuubaa taxawal tàmbali ko ca njaareem albuqaatul rek booba jamono tabax bu mel ni njaareem fan la mën a am ci aweef nga mën koo gis ñu defal ko néegub yàlla euh, jumaay Tuubaa ji biñ koy tabax xoolal raay bi fi ko Cheikh Moustapha al Karim jëlee ñaata million la ci financé lan la fay sacrifice temps njabootam alalam lépp ngir proche Serigne Touba yooyu sotti waaye fam ko yemale woon it ka topp di Cheikh Abdoul Fadal ba mu ñëwee loolu la continuer Cheikh Abdoul Ahad ba mu ñëwee loolu la continuer Cheikh Abdou Khadir Serigne ba ci tey jii fii ñu tollu waxtu wu nekk loolu day yokk loolu nag la muy tegtale mooy yoon wi yoonu pas-pas la yoonu yoonu yitte la waaye yoonu jëf la du yoonu seetaan te ba jamono di jafe. te mag ñi booba mënuñoo denc million mosul am jenn tey sëñ Touba ju mës a jóg dellu ginnaaw defe naa liggéey yi ci ëpp bu ñu ko daan liggéey di jaayante da ngay dégg ne ñaar ak juróom tey jii bu ñu santaanee dara benn taalibe mën naa génne cent millions joxe te booba ñoom seen ñaar fukk ak juróom-ñett yooyee ak seen lim yu ndaw yooye ci lañ yeggaleele Serigne Touba lépp lu mës a naal euh, te te bëggoon kon nag faw nu xool pas-pas yooyu suñu diggante ak Serigne Touba faaw nu dellu ci doxinu mag ñooñu te xam ne mooy dëgg yoon wi yoon wii di yoonu murit loo ci mag du dëgg lu bees loo ci gis rek ñu créé ko du dëgg li ci mat a def lépp borom def na ko ci toppee rek a ci war ak nu ngoo jëf te ku toppe na nga war a toppee te jëfe na nga war a jëfe ah mag ña de dañoo jiitu kenn mënu leen a jot waaye danga am loo xam ne ñi nga maaseel duñ ko am te buñ dee def sénération euh, bu ñëw na ca kaw sénération bu ne ñëw na ca kaw li Cheikh Mountakha wax waxtu wu ne dañ dañ dañ koy am mooy liggéey bi du laal suuf mukk waxtu ne liggéey bi du laal suuf day yëkkatiku rek jëm kanam loolu nag ak dëggoo koy maye loolu pas-pas a koy maye.